asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar xam ngeen ne Babacar ci làmb ngeen ko xam mais làmb nag hélas ku ne xam na ne la nga cay gis ci lu ci baree baree bari ay plante lay doon ay garab maanaam ngeer yaag pafton yaag yooyu moo tax nag tey ñu seet si koo xam ne. malienne la waaye bu la neex sax nga ne sénégalo malienne muy soxna ay Aidara Mboup di koo xam ne yàlla dimbali na ko def ci moom xam-xam boo xam ne da koo donne ci ay maamam di dimbali nit ñi te yàlla tax tey nag ñu fas yéene seq ak moom waxtaan mu wax leen plante yi li muy faj ak ni plante baaxee tey moom lañ seet si tey moo tax tey moom ku déglu da nga dégg ndax yàlla may na ko macha te mu ngi dimbali jaamu yàlla yi moom lañ leen bëgg a dégtal tey kon ñu dem dékk ko micro mu wax ak yéen. Euh, maa ngi lay nuyu soxna Kya Aidara Mboup maa ngi nuyu yàlla subhana taala nuyu yaa wahab yaa yum yaa jujala war kiram yaa latif yow mi diini masawla masama sajalaki bali maa ngi nuyu sama yaay ak sama papa nuyu sama sëriñ sëriñ Babacar Sy rabiyallahu anhu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi nuyu àdduna bi yëpp nuyu yéen tamit nuyu siti yëpp. Mhm. jërëjëf. li ma lay jëkk laaj mooy kan mooy soxna Kya foo dëkk foo juddoo. Soxna Kya dafa juddu Mali yaaru Mali mag Mali mais ni ma nekk Sénégal léegi yaa neuf ans maa ngi fi alhamdulilah maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli si prophète Mohammed sallallahu wa salim su nga man laaj Soxna Kya ay daram bu may kan dina si kontaan trop trop loolu man may descendant Modou Fidiane Diabaté kala jëla sanguy be makka dafara jëli ke kangara jëli ke samusuma jëli ke ku xam Soxna Kya Aidara Mboup yaa ko xam adduna yëpp xam na Soxna Kya Aidara Mboup taalibe sëñ Babacar Sy rabitalla anu ñun suñu liggéey liggéey rawaan la dañoo ko doon suñu maam mama mama tan suñu maam mama tan ne yàlla ma wolof la bay junet gi suñu maam mama tan maam mama tan maam mam yëpp ay borom xam-xam la waaw Soxna Kya Aidara Mboup borom xam-xam la mm-hmm. lii moom du loo formé loo jëli ci say maam yi maama maamaat la non non foruma ko dama ko doon papa adduna dama fa ne xam-xam bi nga defu li gën a wóor mooy li nga doon wóolu batiwaat dem jàng ko man dama ko doon. ba <laughs> dem jàng ko am na solo euh, tey bu ñu ñëwee nag parce que bu ñu xoolee gis nañ fi façon xob bu ne mm-hmm. garab bu ne ren bu ne mm-hmm. ren ak garab ak i xob mm-hmm. maanaam lan la man ci doomu aadama. reen ak xob ak garab lan la mu jëriñ si doomu aadama su ma ko laajee dinaa si kontaan trop garab du soxna kii ay dara bu ma ko sax du sama yaay ma ko sax. du sama papa moo ko sax du yow mi yaa ko sax yàlla subhana taala moo ko sax yàlla bi moo ko sax nee na su nga ko xamee di nga mun a faju ñu ci bare yi ay daram bu mu ne ma wax man ma léeg-léeg meilleur mais si xob si Sénégal soo Soxna ay daram bu ma léeg-léeg meilleur parce que lu tax ñi ma faju ma bare xob bi yàlla na taala moo ko def ma doon ko mun ko faju ko papa nit ki duñu indi remorque kob di ko jàllum fi Sénégal su fekkee ne yu mun ko remor ko bu fees ko néeg fees ko ci kaw fekk na yu xam ko léegi nit kenn doful mu ñëw jël sa alal jox ko sëriñ si mu ne fajal ma fekk na yu doon ko ni ñu faju bari na dinañ faju hémorragie interne yi hémorragie externe yi dinañ faju ballonnement aération hémorragie façon dafa bare am chaque jour maa ngi ko wax si interne bi wax ko sama waxtaan bi ma ne hémorragie ñaar corde la benn corde bi mooy wàcc susuf bi hémorragie façon dafa bare am na hémorragie bi mu def riitax riitax am na hémorragie bi mu sotti direct façon dafa bare am na hémorragie ki def ballonnement am na hémorragie ki def aération même temps am na hémorragie bi tam du def ballonnement du def aération waa hémorragie bu bare dinañ ko faju fii loolu mooy lëmm réew bi moo bare fii Sénégal Sénégal si jamono bi nekk papa tam nee na dinañ faju tam mauvais alerte mauvaise alerte façon dafa bare mooy feebar bu xasam gémmiñ di xasam yaram di xasam kanam di xasam loolu tamit am na nit ki def ko doomu adama ak doomu adama ñu def ko ou bien nit ki def liggéey bon gisul nit ki rek yow neexu la rek nga sànni ko si corté ou bien rawaan mun na ko def ou bien mun na ko def nu mu doon ni rek consultation d' abord ndax xam lu tax tout à ma wax sama waxtaane lu tax consultation d' abord nit ki mun na wax papa man sëriñ la yow du seetal nit loolu du sëriñ sëriñ su nit ñoo na si yow comme hôpital dinga nga def consultation d'abord xool ko moom mooy kan xool ko ban feebar moo nekk si xool xool ko rawaanam ak biddéewam moom may ban façon nit nga dugg sa loxo si yow mun na nga faj ko su yow munul nga bàyyi ko nga dem li wuti leneen jërëjëf. ñu ngi ci faj ay sénégalais lañ fii ci dëkk bi wala dañoo jógee mu ne Mali ñëw fekk la. faju neuf ans laa def fii alhamdulilah yàgg naa fi Sénégal neuf ans te ñuy toog fii Sénégal dinañ faju bitim réew dinañ faju adduna bi yëpp xam na ay Aidara Mboup ma ne euh, ndox kese dunne bu papa ndax xam ni ki mënu ñëw nga ne man sëriñ la amul euh, bagage bi nga faju nit yi nit mënu wax man sëriñ la amul bagage pour nga dindi jàngoro nit yi ñun xam-xam bi ñu doone suñu maam ak suñu maam ma tey su nga bëgg faju nit il nga am sa matériel moo tax ñu jël suñu alal jël suñu ñàkki dem Mali wutu ay remorque garab ñoo wàcc ko fi Sénégal pour faju jàmm yàlla yi papa feebar façon dafa ba léegi nañu faju dafa bare ñii seen yaram day diis ñii ñu leen def liggéey bon ñii ñu am problème tàng problème tànk façon dafa bare am na ñi eh, eh, liggéey bon la am na ñi jabet la am na ñi ñu sànni ko koxte tànk ci biir bi di génne ay ay ritax ritax euh, dët dët nee na loolu yëpp nu mu doon di nekk papa faju nañu lu bare soo nekkee ay dara bu ëllëg meilleur hmm. waa fi Dakar bi ku dara internet bi lañ dem di la wane du lekk na sama xaalis du lekk na sama xaalis du lekk na sama xaalis alhamdulilah ñu ngi sant yàlla musuy am kaa bu boobu parce que gars yi dañ na léegi ñu bëri ci réew mi dañ ne euh, internet bi wala euh, ne waaw internet bi daal tax na ñu ku léegi ku jóg ne man damay faj damay ñaan damay def lii damay def la te par la suite boo demee ba ci biir la ngay la borom di wax ak la nga fay fekk du doon benn loolu mbaa dalu la. de dalu ma alhamdulilah maa ngi sant yàlla de touche les bois soo nekkee ay dara bu def na neuf ans fii Sénégal je touche les bois parce que lu tax même journaliste sax suñu feebar ñu ne ah client di leen woo. kan moo mun a faj fu ñu dem leen si Soxna ki ay Mboup parce que loolu du comme Soxna ay Aidara Mboup moo jol ou moo def noonu du loolu xam-xam moo wóor papa su nga am xam-xam il faut mu wóor ñu ngi sant yàlla subhana taala yàlla may nañu xam-xam bu wóor duñu fugg suñu dégg duñu wax ñun ñoom mun euh, papa feebar tam su nga nekk nga faju nit ki il faut nga xool ba pare lii mun nag ko nga dugg sa loxo su nga mënu nga bay moo tax problème bu bare mu daal yeneen sëriñ si mënuñu ñu dugg seen loxo ci jën alal jàmbur après ñu yàq seen der si internet bi. yow loolu doo ko def. ah loolu du ma ko def musuma daal dugg si internet musu ko daal. mosoo jël xaalisu jàmbur borom ne la la la la la la nga ma doon fajal da nga maa nax. non non musuma daal alhamdulilah je touche ma ngi sant yàlla bu baax baax musuma ma ni ma ni ma faju ni dama ko doon dama ko dama ko doon ma tëpp tëpp rek nit ñëw rek dama feebar dugg sama loxo non non nit ki mun naa ñëw ma yërëm ko daw ko si yërëmaande mun na ko jox garab mu jël ko mais du ma ñëw tëpp tëpp tëpp di nit ñëw rek lii laa am rek jox ko garab non non dama ko def. Mm-hmm. Mm-hmm. am na yeneen yoo xam ne tamit dañ ko gis ci dëkk bi ñoo xam ne dañuy mbir day am wala mbir di waaja am comme tey lu mën naa jël exemple làmb ji wala futbal wala leneen ñu ne génn am ku génn ne ab ne seetkat la wala sëriñ la ne diw mooy gagné diw wala diw mooy am lii diw yow yow yow loolu da nga koy gis. waaw ñun de waxee si président de toog wax naa la benn wax léegi man man descendant mori fujan jamati la kalaju la sanguy be maaka dafara jëlike kangara jëlike samsuma jëlike dama la wax léegi wax boobu comme yow xam ko yow Mali wolof la yow du mali malien Mor Foudia Diabaté moo doon Serigne Almaamu Samori Touré man kilifa yi tout le temps tout le am na dina génne di di wax problème day am Sénégal dina génne di wax mais du ma wax si làmb mais dina jëflante ak mbër yi lu bare bare sax macha allah. mbër yu mag yi wala yu ndaw yi. soxna Kiné dafa ndaw man ndaw ma de. kay xalaatoo ndaw yow da nga ku la gis ndaw waaye da maanaam xam nga xam nga jëflante moom mën ngaa jëflanteeg xale mën ngaa jëflanteeg mag moo tax ma ne la mbër yu ndaw yi wala mbër yu mag yi. jëflante ma mbër yu ndaw mais xamuma leen tamit ni yàlla teg sama yoon ma jëm soxna Kiné Mboup de jëflante ak mbër yu mag macha allah parce que man yee papa xoolal man ci kaw ba sa suuf est ce que man dama war a jëflante ak mbër yu ndaw yi. ok maa ngi lay gis. jërëjëf. gumbagul de xanaa. ah loolu laa foog de. Mhm. <laughs> mbër VIP yaa ngi jëflante ñoo ñoom. macha allah ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala du ñu wax tudd kenn. Hmm. Mhm. politiciens yi nag. politiciens yi sës ñuy xëccoo réew mi ak ñi ne ci bopp réew mi maanaam. dinañ papa dinañ jëflante politiciens yi. ndaxam am su nga nekk si liggéey xam-xam. nit di façon yëpp la nga gis. mais sauf ku dóoru yaayam ak papam du ñu jëflante ak ñooñu. di dinañ jëflante àdduna nit façon yépp mais sauf ku dóoru papam ak yaayam di ñu jëflante ak ñoom parce que suñu xam-xam bi wax nañu ku jëflante ku dóor yaayam papam su mu ñëw si yow di ko jëriñ ñoom kese lañ jëflante ñu politicien façon yëpp dinañ jëflante ak moom parce que su nga doon sëriñ di nga jëflante ak politicien di nga jëflante ak footballeur mais di dañuy jouer loterie di ñu ko jouer. mooy loterie loterie mooy ñi nga xool jouer yi nga xool su fekkee ne dina gagné du ñu jouer loolu. Mm-hmm. yow loolu loterie nga ko tudd. waaw loterie la tudd man du ma joué boobu. déedéet. Mm-hmm. mais tey exemple ab ñi nga xam ne dañuy sàcc ak yooyu ñooñu da ngay jëflanteeg ñoom fexe ba ñu bàyyi sàcc wala. bon sàcc tamit avant dina ko def depuis ñu ma woo police jëppal ni commissaire bi nee ne arrêté nga di seetal sàcc yi dugg na fi yow du police loolu yooyu duma ko def waat arrêté naa ko waaw. Mm-hmm. tey euh, boo xoolee euh, mu mel ni. ci li ñuy dégg di ko dégg ci waram xam ne danañ garabu pharmacie yi maanaam garab yi nga xam moom docteur yi di faje yëpp ay plante la yu tubaab yi jël defaraat ko di ko di di ko faje yow loolu da nga koy dëgg waa dëgg la parce que tubaab yi ñun day liggéey ak ñoom ñu yóbbu leen chaque année Mali ñu wutu ay garab ñun tamit chaque six mois dinañ dem Mali après ngi ngeen ko def seen internet bi ñu ni ay remorque garab ñu wàcc ko fi Sénégal di fàttu jàmm yàlla yi dëgg la am na loolu mooy yiri la doon yëri bel laa doon ñoxonte yëri laa doon mooy plante bu baax bi boobu lañ jël di ko def ay garab dëgg la. Mhm. Mhm. yow sa plante yëpp Mali lay jóge wala am na ñuy jóge Sénégal. non Mali la mu jóge. yëpp yëpp xam nga garab yi ñuy tudd sax wolof. tax ma lay laaj ci garab yi rek garabu guy xam nga ko defe defe naa guy. buy xam na ko ke. guy day faj. waaw day faj ke. Hmm. <laughs> garab quelque ni nga même xaay xam xaay. xam na yooy yëpp. garabu xaay. xam na loolu yëpp. yaay dem ci àll bi. waaw ñu ñu dem suñu bopp dugg ci àll bi. génnee suñu garab bi weer ko su woow na ñu ko dugg si sac bi indi ko fi Sénégal. ci camion wala conteneur ci camion ci conteneur conteneur lañ jël waxtaan ak borom conteneur bi mu indi ko ba Sénégal. li si fay si xaalis bari na pour nga indi ko fii. bari na papa bari na mënuñu ko wax bari na bari na na bari na waaw hmm, bari na. li ngay fay ko client yi seer ah bon souvent di nga comme léegi client bi ngeen gis ni di nga gis benn client amul nga xam ki mag la sa moroom yaay la yërëndaa yërëmande bi nga daw sa yaay di nga ko daw si yaay jàmb àdduna noonu la mais yow du ko mën a topp ba mu sës waa garab tam bi fees dell ci biir kër gi souvent di nga gis ki amul nga daw yërëmande si yàlla tax yàlla def ko azaka garab bi waa des fois nga def waaw des fois ñu may nit yàlla tax. waa mais su ñu xam nit ki am na lu tax nga may ko yàlla tax day fay parce que xaalis boobu lañ jël dajale dajale dajale dem wutuwaat parce que garab yëpp su nga ko jox yàlla tax yow lan la nga dem wutuwaat. waaw noonu la liggéey yëpp nga def da nga bëgg am tuuti. ma dégg sànq nga ne soxna Kya ta ay dara mbuub taalibi sëñ Babacar Si bi ma duggee ci kër gi wax dëgg yàlla fotom laa njëkk a jàkkaar lool ñaan yàlla taaf ñu si barkeem di nuyu xalif ay ay njabootam yëpp di nuyu njabootu diine yi nekk Sénégal sëñ Babacar Si euh, ngay malien ba pare sopp ko loolu ba mu nekk sa sëriñ lu tax loolu tax dama sama liggéey bala ma jugu sam loxo liggéey xob bi sama liggéey fétiche la woon fétiche def naa trois ans vie Sénégal ñi xam Soxna ay Aidara bu dugg ci internet bi comme bi mooy seen suñu première fois Babacar sama sëriñ ñu jëf jëflante euh, ni Soxna Kya commencé ñëw fi Sénégal trois ans sama liggéey yëpp ay fétiche la waaw fétiche garaaw na dafa baax mais bu lu rey kenn bul def lu bon liggéey la nga def di jàppale doomu aadama yi may gën ku def lu bon mu gën a garab féticheur bi féticheur su ñaan na yàlla yàlla na ko defar. chasseur su ñaan na yàlla yàlla dina ko defar mais ku bon bi di juli chaque jour fekk na xol bi rafet dafa soxor loolu baaxul man dama ma ne féticheur ak chasseur moo ko gën waaw sëñ Babacar Sy radiyallaahu anhu dafa defar Soxna ay Aïdara bopp lu bare parce que lu taax ñu ma ñëwoon fii Sénégal trois ans sama liggéey yëpp ay fétiche la tout deret benn jour photo bi di ma cliquer ma daw génne si biir néeg bi ma ragal li ma ragaloon voilà non da xam moom su nga dugg sama lig partout photo mi ngi foofu yaa ngi gis fii yaa ngi su nga dugg salle bi sax di nga ne ah, yëpp moom la fu nekk oto bi fu nekk moom la parce que dama ko gëm dama ko bugg na dama ko gëm dama ko buggu léegi photo seen Babacar Sy bi bu ndaw bi mu nekkoon ci biir sa eh, sama ci biir liggéeykaay bi photo bi day def nii di bouger di bouger di bouger après ma ragal ma daw gëne ñu ne ma ñu fekk naa ñu ne soxna Kya lan la nga def ma ne na man ñaanoon fétiche seen Babacar bëggul loolu ma arrêté liggéey fétiche bi jëli fétiche bi delloo ko Mali parce que fétiche bi fu mu jógee du Mali kese la mu jógee dafa jóge fu bare am na yi ma jël Benin am na yi ma jël la Guinée Conakry am na ma jël ci biir Mali tamit am na yi ma jël Burkina Faso am na yi ma jël Nigéria ak Niger indi ko fi Sénégal alhamdulilah fétiche ni ma ko defoon àdduna yëpp dëgg naa sama tudd mais bàyyi naa ko di def sama liggéey xob. <laughs> ndax sëñ Babacar si moo tax. waaw. kenn du moom si Malick mhm, dama ko gëm. Mhm. <laughs> kon daal soxna ki yaa fi mu nekk nii moom dimbali jaami yàlla yi lay def mais liggéey liggéey bu bon. nit bu ñu ñëwee ci yow sant la liggéey bu bon ne la defal ma ni lii nit wala nangam sànnil ma ko kort ak yooyu doo ko def. Eh, Babacar nit ki xoolal yàlla nga wax sa diggante ak sa borom bul wax Babacar mi ngi tàll la micro da di fen loolu baaxul yàlla bëggul loolu. du ma wax musuma def liggéey bu bon su ma ko war maa ngi fen mus naa ko def loolu yàgg naa ndaxam xam loolu laa la wax léegi jamono boobu ak jamono yi léegi du bene lu bare changé na waaw. kon daal da nga koo bàyyi fi mu nekk nii. waa def ma yooyu. déedéet. léegi daal liggéey dimbali nit rek faj nit rek mu dem. ma faju nit ki oubien nit ki ma am gàllankoor oubien nit ki nekk si liggéeykaay mi ñu ko bu bu xatal oubien nit ki nekk si liggéey liggéeykaay bi ñu ko dakk si place am oubien nit ki nekk am këram. ou bien am place am ou bien nit am terrain ñu ko indi ay coow yoon laa liggéey doomu aadama yi ou bien ñi seen yaram tilim ou bien ñi am yaram diis ou ñi am folie mentale ou ñi am mari de nuit femme de nuit ñu am problème yaram problème digi ak ñi am problème sëkkat sëkkat façon dafa bari Babacar yow sax yaa ngi sëkkat <laughs> façon dafa bare. sama sëkkat bi de moom. waaw dinaa la ko faju dinaa la ko faju beneen émission nga ñëwaat nga ne soxna kii moom faju wax naa la ko ma naa journaliste si bare ñoom indi soxna kii ay darabu client man du ma fi de man Mali laa juddu Mali yaa yaru sama papa mooy wolof mais su nga gis ma ñëw fii àdduna yëpp ma xam-xam moo wóor papa waaw parce que chaque jour maa ngi dóor sama dén si internet bi ma ne pourquoi pas ñun sëriñ yi du ñu def concours président Macky Sall jàppale su ñuy def concours. Ah. waaw da ngaa bëgg yéen ñuy wax ah, ay sëriñ yi ngeen yëpp ñu organiser leen. benn concours ku ne wane sa bopp. waaw waaw pourquoi pas. Hmm. Babacar soo nekkee ay danam bu jigéen la mais xebu boppam góor mu mun a dem mun naa ko dem man jigéen góor la de. Babacar yeneen sëriñ yi dañoo aayul. waaw munuma ko yeneen sëriñ aayul. mais ay dóor a aay. munuma wax loolu tamit ay dóorkat yi dafa bare. daa mi dóorkat. bare na. Ah, gis nga fi ay dóorkat ci sëriñ si. bare na. ñii di wax ne dañuy faj bare na. kan ak kan. du ma wax tudd kenn danga ma bëgg wax lo du ma wax tudd kenn. mais xam nga leen mais xam nga seeni kanam yow. ndax xam su nga nekk liggéey sëriñ bi Babacar sama portable mi ngi nii client yi ñëw di wa du lekk na sama xaalis du lekk na sama xaalis oubien client yónni na vocal du lekk na sama xaalis du na sama xaalis wax naa la soo ki ay dara mbuub def na neuf ans Sénégal ayez les meilleurs kenn mësu dugg si internet boo ko soo nekkee lekk na sama xaalis oubien mu yónni audio soo nekkee moo ma def lii neuf du benn fan neuf ans du neuf jours du neuf mois lool laa def fi Sénégal ma ngi sant yàlla subhana taala bu wër-wër. waa am na loo xam ne xam naa foofu lañuy jeexale ma laaj la ko xam naa laaj bu kii la waaye nag fawees laaj la ko ndax daa bokk ci àddina bi waaw ah, parce que laajut doo xam faw parce que ñi ñi seetaan dañoo bëgg a xam ndax Sénégal dafa am problème bu fi am wala sax ci àddina bi mooy sëy yi rapport sexuel nga jéggal ma ci kàddu gi waaw da ngay dégg impuissance ak yooyu mu sonal ñu baree baree bare fi mu nekk nii bala nañu di ko naan ngir mënan rek euh, yaam ma gën a xam loolu est-ce que ay nga ci. am nañ faju nit yi ñuy am problème kattan kattan la nga bëgg wax. problème kattan bi su nga ko bëgg wax internet bi di nga dugg si suñu papa yi ma ko ba mu xot chaque jour ko internet soxna ki Aïdara bu dafa yaru kenn du ko dugal man sama maam moo ma yar dafa ma yar yar bu baax su nga ñëw rek xam-xam rek dina la ko may Babacar ba nga doyal ba nga ne ah jigéen bii beneen yoon su ma ñëw dina préparé waa ñëwaat si moom dégg nga ne xam-xam mooy lan ni nga xam yemal boobu ni nga xam bul ko wax xam-xam tuuti la mais nit yi ñuy rëy sol yére bu nganda teg musóor bu nganda di wax wax bu nganda loolu du xam-xam xam-xam tuuti la ñi am problème kattan kattan façon dafa bare am na ñi maa ngi jégalu seen sinit bi ma ñu téye wattu affaire bi am na ñi rawaan bi def ko. am nañu liggéey de def ko am nañu tout le temps maa si internet bi so pisi de def ko am na nañu liggéey bu bon de def ko am nañ tam jigéen bu bon tam de séentu góor bi fépp mu dem munu munu munu taxaw bu baax si du moom ma ne ni mu doon loolu yëpp consultation d'abord suñu ko xale li lan la rek ñun dinañ ko faj am nañ garab kattan bu bare macha allah ñu ngi faj doomu aadama yi am nañu seen ndox dafa baax am nañu seen ndox baaxul am nañu itam ñoom day jóge rek munu jëriñ dara mais munuñ ko wax ba mu xóot ndax am internet lu nekk mooy xool ñun kilifa di ne kilifa aade kilifa yi di xool la sa morom yaay sa morom papa dox yow munu génne di wax wax vulgairement ni ku ko soxla rek suñu ko waree dinañ ko wax yow. Mhm. am na ñu itam def des fois damit itam am na ñoo xam ne souvent da leen dëndil yenn yi de. Mhm. fo maanaam di fo. waaw. waaw de dindi ko maanaam maa ngi jégalu góor bi di def boppam nii nii. de de tax basi ndax maa ngi jégalu góor sinit la Babacar yaa ngi ma dugal wax borom ma ko wax de <laughs> góor sinit la daxam sinit mooy téye kattan bi mais su sinit bi dee na Babacar la la kattan bi téye mais il faut nga liggéey sinit bi travail ko mais am na góor itam maa ngi jégalu ñoom di foo foo di si ñoom rawaan bi nekk si ñoom. nga leen def fu nekk mu toog ñu def ko fi def ko ni def ko ni da mais après ñu rëcc ko même jigéen am na ñuy def noonu am na jigéen amuñu bànneex am na jigéen am nañ bànneex ni mu doon ñu ne am na ko am nañ femme de secret am na homme de secret waaw ni mu doon ni rek ni mu doon consultation d'abord hmm. Hmm. am na am pagaay hmm. soxna kii kontaan nañ ci yow waa mbas mi waa wax dëgg mbas mi waaye laa fàttali na ma xanaa coronavirus bi nii coronavirus bi yéen seen sa garab yi mënu ci dara coronavirus bi ni mu commencé woon ñun wax nañ ko am na benn feebar de ñëw su nga dugg si internet mi ngi fa Babacar ma ne wax wax bu neex Babacar mu ngi tax ba sama sëriñ sëriñ Babacar si rabi talaan turandoom na rek wax bi di neex de ba nga sol sa lu weex yi ndax man ma bëgg lu weex. Ah. sama rawaan waaw sama rawaan lu weex rek la mu bëgg su nga xoolee soo nag ay darab lu weex rek la mu sol voilà du ma fen bas bi nu mu commencé wax nañ ko am na benn feebar bu ñëw. ni ñuy dugg si 2020 bi wax nañ ko encore feebar bi day dem ba décembre ni dem si decembre wax nañ ko am na beneen balaa ñëw nit di commencé son ak yaay dara bu commencé na wax commencé na wax commencé na wax ndax am bas bi nekk na fii ñu defara suñu jukko yi ñu ragal yàlla wax nañ ko woon ministre de la santé su moom bugg na mu ñëw xool sunu garab am na pays bare seen traditionnel lañ jël di ko mélange jox ko nit yi ñu naan ñu tane. Hmm. mais pourquoi pas ministre de la santé ñoom di ñëw essay ñun suñu tradition ñu xool ko am na benn kilifa waxtaan naa ko moom mu ne station kii yaayu am na qualité bu doyal pour faju nit yëpp ma ne ni nga wax <laughs> ma ne ni nga wax dëgg la mun mun na nekk ni ma yore mun faju nit mais suñu juboo Mali sorow fii mun nañ daw dem wutuwaat indi ko. pour faj coronavirus bi. très bien. kon pare nga pour faj ko. pare na ah Babacar woo leen ñu woo ma. Ah, bu la état bi woowee nga faj coronavirus bi léegi. ma ne Babacar. coronavirus feebar la. balaa la kan moo ko wàcc du yàlla moo ko wàcc xob yi kan moo ko def du yàlla la ñun doy am xam-xam rek xamu xob yi lii lii dee faju lii lii dee tax lii mu dindi lii dee tax mu defar waaw ko ku xam la li nga dindi feebar bu bare. kon yow daal tey bu gaa yi ñëwoon ci yow léegi corona bi arrêté. Babacar bu ma sonal wax naa la ko woo leen nga ne xam na kër Soxna Kya kaay ñu ànd dem si Soxna Kya moo ko wax. santé bi de ab Abdoulaye Diouf Sarr. ñu faj fi Sénégal. wallaahi billaahi tallaahi am na ñeneen médecin xam na Sonakia hôpital suñu yóbbu malade ba sono ñu ne yóbbu ko si malien bi Sonakia ay dara boobu mu faj ko am na ñu feebar ba tëddee yóbbu leen ko si Sonakia mais pourquoi pas su balaa dugg na si bi ñun ay même suñu liggéey tubaab lañ def mais liggéey xam-xam bu ñun lañ def mooy xob yàlla moo ko ñu maye ñu woo leen ñun indi leen seen xob bi ñu essayé xeebante baaxul. indi leen seen xob ñu essayé yàlla subhana taala mun na ko jaaree suñu loxo yi ndaxam xam nit ki mun na faju nit ki Babacar danga fa ne saa sa man mun-mun la dede yàlla moo la ko maye. su du yàlla nit mun na yow du mun si dara si moom parce que neexul moom yàlla subhana taala nit ki il nga gëm nit ki nga gëm xobam nga gëm moom waaw man loolu laa gëm parce que man dama gëm sama bopp. Ah, coow li fi am bërki dem fii Sénégal noo ko gisee. boo wax naa ko benn journaliste il comme a combien de moom même pas quatre jours de parce que jamono boobu journal dama jugoon dama demoon voyage euh, coow bi fekk na ma si voyage ni ma ñibbi si deux jours après ma fekkee affaire bi coow bi commencé journaliste ñoo laaj ma ko wax naa ko coow bi ni ma ko gisee fen de tas réew Babacar fen de tas réew parce que yàlla subhana taala nee neene dina am baal yépp sob fenkat du ma ko baal ndax am lu tax yàlla wax loolu parce que fen de taal réew yàlla musul ñu fenkat ñu ngi ñaan yàlla subhaana taala li defoon euh, jour bale yàlla bu mu tax mu am encore seytaane baaxul seytaane dafa foor seytaane si duggoon naa si nit ak nit yi rawaan seytaane day jóg dem dem ma seytaane de jóg lu nekk day jaxasu ci ñu ñaan yàlla subhaana taala yàlla seytaane yëpp si baax Alxuraan ba si la Faatiha soxna Aïdara am na borom kër am na ah sama borom kër lébu la am na ah Babacar yo da nga bu soxna kii ah? yow ah yow da ngaa bëgg Babacar. bëgguma Babacar. Ah, man de bëgg naa la. man am na borom kër sama jëkkër. ah déet ah déet yaa ma laaj ndax dama laa bëri de yaa ma laaj de. parce que lu tax nga non waaw dama la ah du ma la ko laaj. am na borom kër. ngay soxna toog di liggéey macha mel ni nga war a mel. waaw ah man faaw ma laaj. lébu bi am na borom kër lébu bi dama ko. man sama jëkkër. sa borom kër. macha allah yàlla yàlla yàlla na leen yàlla saxal. yàlla dinañ saxal. yàlla na leen yàlla dëgëral. yàlla dinañ amiin Babacar. laajuma la de yaa ma ko laaj. parce que da damaa bëgg. laaj ma ay xob. lu tax nga ma laaj ma ay dangaa bëgg jëkkër dangaa am boobu dangaa faas. dangaa bëgg jëkkër dama laa laaj ndax am nga borom. ñoom sarawaan ñoom a bëgg. dinaa la caw de. borom kër moom du euh, taalibe seen Babacar moom Baye Fall la. waaw moom murit la. ba tey benn ba tey lépp benn rek ashadu laa ilaaha illallah baa tax. yëpp benn la sama papa tam murit la ñun ñëpp benn la ñun ñëpp maa ngi ko nuyu Baye Fall bi. Mm-hmm. kon ñu ngi nuyu Baye Fall yëpp rawatina xalifa bay Fall yi di ziar ñëpp di nuy Mouride di nuyu Tidiane di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Mali Gambie Mauritanie Afrique yëpp ñu ngi leen di nuyu. waaw ni nga bëgg ba léegi waxu ko acca ñu dem bisimilah. Mm-hmm. fan la ñu man kay wax naa ba pare yow kay yaay tàggoo léegi tàggoo. maa ngi nuyu bi yëpp nuyu kilifa diine ak kilifa àdday nuyu sama yaay ak sama papa nuyu sama borom kër man soo nekkee ay dara bu ku ma su fekkee na parce que sama voyage dafa bari Babacar sama bu Munich mun na ñëw tey ma nekk fi suba benn nit woo ma déplacement sama déplacement dafa bari ñi ma génne di dugg moo bare ni ma toog benn place fii Sénégal mais ni ma faju tam moo pare mais du ma wax mun naa yëpp parce que doomu adama motul nit ki su la woowee soo nekk yaa lii ak laa la soxla dama bëgg sangat wala dama bëgg problème kayit wala dama bëgg voyage wala dama am gàllankoor dama am problème jëkkër dama am problème mais sauf ku dóor yaayam la woo. loolu lan lañ ko faj Babacar. bay ak baayam moom faj ko du wóor sax. parce que man sama liggéey liggéey rawaan la. voilà man sama liggéey liggéey rawaan la. masama rawantamba bami aydara bani kurosi bani asimka alma mulam ladde co jankata ku nga fi kasi nga ñafe day wax maquillage yëpp nga def mu leer mu wóor lu wóor moo gën maa ngi nuy waa adduna bi yëpp nuyu kilifa diine nuyu kilifa aada yi nuyu sama yaay nuyu sama pàppa nuyu sama borom kër nuyu yow Babacar nuyu sama sëriñ Babacar Rabiou Talla anu suñu xarit bi togg nii yàlla def élage nuyu la bu baax baax sama xarit bu baax bi élage tout le temps waxtaan ku baax la tey ya tey yàlla def na ba ñu toog waxtaan bi maa ngi ko sant di ko gërëm yépp moom la su du moom tey li du am di nuyoo tam bu baax a baax ñaan seen site bi yàlla def mu dem si kanam kanam kanam kanam bu baax baax yàlla def tam waxtaan bi mu yem bi benn bi chaque jour ñu ko defoo ensemble kontaan na sucran